ñaawteef bu metti lañu nemmeeku fii ci Touba ci fu ñuy wax Daaru Njaay li ko waral jullik jàkka gi ñu doon amal ci leen nemmeeku agression yu metti ci xale yooyu lu toll si fukki takk der ak juróom janoog ay xale ba ñu nemmeeku ci damm loxo ba ci ay balu fetal lépp ngir tere leen julli kii di Xaadim Ndiaye bokk si ñu ñu agressé mi ngi ñuy xamal mbir mi ni mu demee. man bi may génn ci jàkka ji maa ngi gis oto bi di tourné ci tëli bi di ñëw bi muy ñëwit gis naa aw nit wu taxaw ca tëli ba mu romb leen fi jàll kon day mel na jàkk jee ko taxaw na jóg bi mu essayé nag fekk ñuy dugg ci kër gi euh, la am ku jàpp ci ñun muy Ablaye mii nga xam ne du dégg du gis léegi bi mu ko jàppee mbay mii ak euh, galas nga xam ne ñooy magi kër gi daal di ne nan dem maslaa ak moom ma topp ci ñu dem. biñu demee ki ko jàpp nag bi mu koy jàpp boobu oto bi egseegul ndax dañoo yabal ñaar ñu dox di ñëw kii dox di ñëw nag moo jàpp kii bi mu ko jàppee da koo dóor bi mu ko essayé da koo bettee ginnaaw dóor la ko def tëll la ko def te boobu loxo la ko dóor dóoru ko ngàndaay léegi bi mu ko jàppee ñu dikk daanu kii ka du dégg buñ sañoon dañuy ñaan njëkk ak teraanga ngir nga jéggal ko ngir jëm yàlla ndax boo ko yóbbee ñun ngay sonal bu aajee wax ñooy wax bu aajee wa joxe ñooy joxe bu aajee wa tontu ñooy tontu kon boo ko yóbbee ñun ngay sonal kon dimbali ñu ngir yàlla nga jéggal ko mu xaw a waxante ñun daan nañu dañ na yarade ko ndax saabu firi gi lu tax ngeen daw dugg ci kër gi ma ne ko ñi daw dugg ci kër gi dañuy ay nit kii nag da du nit mu rëddawul ndax li jàpp nopp yi moo jàpp xel mi bu doon nit nite du taxaw te du yeexantal ba at di ko fekk donte génn na ci jàkk ji ak gul ci këram kon ci mbedd mi lañ ko jàppee waaye ma ne leen yéen yéen ngi ci yoon ndax yéen ci lu waa ñi nekk waaye ñun am nañ droit ñëw ñaan njëkk ak tiraan léegi nag bi wax ji xawee xumb mu daal di xaw a dépassé wax ji lool wax fa ne dañu ne yaradiku kenn yarul leen a xeet yi mel noonu da ngeen a naa nga naa ba yëkkati ay saa ba di saaga bi mu waxee noonu nag ba jot ma man na ko yow mii nag kenn gun laa yar ko ndax ñun dañ laa ñaan ci njëkk ak teraanga waaw wala déet loolu doon waaw mën naa leen may wala déet nag bi waa ji xëttantee mu ne ma da ngaa yar de ko naa nga naa ko yaa gën ndax ñun jàngal nañu yar boo melokaan yi xam nga ne ñun du nekk ci lépp lépp loo xam day waral ay violence xeet yi ni mel nga xam ne ci la wax ji xaw a kii di oto bi daal di si ndax bi mu koy jàpp bi ñuy wax ni wax na la yàgg oto bi doo ko ñëw bi bi ñëwee lu mat fukki nit wàcce nañ ci bëri nañ lool buñ wàccee jàkk koy saax-saaxee dugal ko ci biir oto bi mu xëxante ñëw ñu dugal ko ci biir bi ñu ko dugalee ñëw ci mën na naw dal lay yóbbu na dal lay yóbbu man ko man moom doo ma ndax defuma loo ma yóbbee ci la jàppee sama mu yëre bi ma soloon yëpp da ko xotti ñu xëxante ñëw gars yi nekk foofu di jàppante xeet yi mel noonu léegi ba wax ji bëree nag ñoom ci leen déplacé oto bi dem ba ci meneen mbedd mi mbedd mu mag mi biñ taxawee foofu nag mbooloo mi génn si ñëpp tasaaroo bu defee fa la cooli tàmbale nag waaye kii bëtam bi gis nga ni nga ko def ñoom ñoo ko door kee loxo ba dafa damm dañ koo dóor man mii di wax yow sama oom bii ma lay wax nii tey léegi laa ci doog am jàmm ndax dama ko yóbbu ba li ji ko léegi te ba tey maa ngi ak métti xam ma ba xam daa dammam déet waaye dem naa ci jéemu doon ci def rajo ngir xam ba xam ndax wàllu yeex dafa sensible rawatina ci wàllu ooma yooyu yooyu yëpp di ay blessé yoo xam ñoom def nañ ba cool yi bëri na ba mboolum génn te li kër Cheikh Bass ba kër Serigne Sidi lépp aw nit la ñëpp tàmbalee ñëw ñu xam na nag yëf yi mi ngi bëgg a ëpp loxo ñoom boo fekkee ñuy dóorandee xeer dóorandee korfañ ba am na kun ci jàpp am na kun ci jàpp koo xam ne moo di jaay ci doom ñoom ñu njëkk dóorante kii la njëkk dóor kii bi koy dugal ci oto bi dóor na ko biir oto bi la ko dalee biñ paree ci moom ci man mi lañ ñëw dóor na ma man dóor ay liif dóor na ma ay guum la ñoroon dóor na ma ay corde bi ma dóoree ci la ma dóoree ci oom bi bi ma dóoree ma daal di gaañ ci oom bi ndax dafa kii ak sëñ bi nga xam ne loxo bi dafa dem ñoom yaakaar naa mat nañ 15 war nañoo mat 15 ndax ndax beneen oto daa ñëw bi affaire yi ëppee loxo beneen oto daa ñëwaat mooy jiri bi ñëwee fekk fi kaar bi ñu daal di taxaw affaire yi ëpp seen loxo xeer yi di ñëw ñoom ñuy sànnante xeer ñuy sànnante xeer xam nga ñaari mbooloo fu ñu dajee ba amatul xalaat amatul waxtaan daanaka jëflante gu mel na te jëflante gaañu mën na caa am ci leen mujjee ne daal di dóor bala fetal bala fetal yi moo nekk nii ñaar yi dafa rote ci ñoom bii moo xam nga lu mu dóor la ba pare ñaari bal lañ kaw lañ ko tiire benn bi ci suuf biñ tiire ci te xam naa kam dal ci ñoom la bokk. porte parole xalifa Serigne Darou Assane Ndiaye di wuyoo ci turu sëñ Ibra jëmm di yëkkati ay kàddoom jëma ko ci takk der yooyu ngir ñaawteef boobu ñu def. kon nag loolu moo tax sëñ Abdou Khadir sàkk woon ñu yëkkati kàddu jotal mboolem kilifa yi nga xam ne ñooy kilifa yi réew mi tàmbalee ko ci président wàcc ba ci ministère l'intérieur ba ci préfet bi nga xam ni moo nekk fii ci Touba lii ñu yëg ko bu baax a xam ni ñii la demee te ñoom ñëpp ñu xam ni noo bokk Sénégal di sénégalais fii ay wëñu wala ay sàcc wala ay raykati nit nekkuñu fi bu fekkee ni nag dañuy yëpp leeti ci lu mel nii ci dëkk bu mel ni Touba la jaadu te rafet te yell tey dëgg mooy ñuy seet ñu méngoog waa Touba di nit yiw ñuy yar ñu amuk dal ñoo xam ni buñ dikkee dañ xam ni fii nit ñi yiw fi ne ñu xam nañuy waxee ñoom ba lañ bëgg a liggéey ñu liggéey ko ci jàmm te wenn ay du am wenn yëngu du am waaye lii moom lu wàcc yoon la ndax ni ñuy jëflanteeku sàkk wala raykatu nit wala bu agresseur warta bokkal na ñuy jëflanteeg ña nga fekk ca jàkk ja ñuy jaamu yàlla mm. di ja di di jaamu yoo xam ni kenn leen dégg ci yenn luy yàqum réew luy luy defar rek ci lañ ndax liggéey mooy tàmbulit ak jàng xam-xam mooy tàmbulit doon citoyen ba nga xam ni moom la président bëgg moom la réew mi bëgg te loolu ñu nekk fii loolu rek moo nekk ci ñoom. kii di Serigne Bassirou Abdou Khadre nekk porte-parole xalifa général Serigne Mountakha moom it mu yem ak xalaat ak porte-parole boobu leen daal dinay ñaanal waaye tamit di mastawu njaboot googu ngir ñaawteef boobu leen dal di wax tamit ñi yëngu ci wàllu woowu di takk der yi dañoo war a gën a sàmmonteeg àq ak yelleefu doomu aadama yi ndax nit du bant. fii àdduna toll lii nga xam ne ak wér di la te suñu borom wàcc ko ci kaw suuf te mu waxoon ca la Sëriñ waxoon ca eh, peste ba boo amee ci njëriñ mbindeefum yàlla suñ borom lu mu fi wàcce waxtu ko suñu borom jeexale mu jóge fi waaye kon li ci suñ borom santaane ci àdduna ci lu ñu war a sàmmonte. loolu sëriñ bi mi ngi koy fàttali looloo waral sax ngir nag bëgge eh, gàttandu dogalu suñ boroom moo tax sëriñ bi di santaane lii nga xam ne mu ngi koy santaane ci biir loolu itam nag ñu ngi ñaanal bu baax xew-xew bi nga xam ne amoon na fan nii ci jàkke jooju ba ay jàppante am fa ñu ngi masawu njaboot ga ndax ñoom ñëpp taalibe Sëriñ Tuubaa la dëkk bi ku fi ñëw ku ne dangaa gàddaay ngir yaakaar yërmande yàlla ak yaakaar xetliku Serigne Touba ndax Serigne Touba waxoon ne ku fi sam xel indiwu soo xel indi la fi kon nag ñi fi ñëw ñëpp loolu leen fi indi kon nag képp koo xam ne lu mel noonu dal na la fi te muy doog suñu borom loola ñu ngi koy ñu ngi leen ci ñu ngi koy ànd ak ñoom tey eh, digal ñi nga xam ne itam ñoo yor loolu ñu gën a sàmmonteeg ak doomu aadama yi sàmmonteeg itam nii jëflanteeg nit ñi ndax. nit dudul bant suñ borom daa wax ne wala xad karam naa bani aadama kon boo koy digal loo xam ne njariñam itam bokk na ci xikma ba nga fexe ba waxee ko ko noo xam ne dan la mën a dégg muy ud'u ila sabil rabbika bil hikma wal maw'izati hasana ndax loolu rek ko koy indi kon li ci des ma bàyyi ak suñu affaire bu so mu sànni ci kàddu bismillah ñaan lañ ko defoon mu mujjee soppeeku ci violence ba tax kilifa yi ak askan wi naqarlu ko lool ay damu damu aki gaañu gaañu yu metti ba tax ñuy laaj ndax Sénégal dëkku démocratie la